waaw xanaa di leen di jaajëfal rek di wax ni ñu ngi félicité ñu ngi rafetlu euh, organisation forum bi euh, di félicité assis waaye di wax ni thèmes yu ñu choisir nekk nañu ay thèmes yu am solo euh, mu ñëw nag aussi ci contexte goo xamante ne bu bu bu bu war daal ndax au niveau international gis nañ li fa xew gis nañu impact yi mu mën a indil fii ci suñu dëkk donc bu ñu bëggee. Euh, protéger suñu dëkk ci jafe-jafe yooyu nga xamante ne du ñàkk au niveau international ñu jànkonteel ko il faut ñu fexe ba euh, di produire fii waaye ñu produire ko à grande échelle te loolu li ñu koy may moom mooy industrialisation waaye di wax ni thème bi tamit mu ngi am solo ndax ñu ngi nekk ci contexte zone de libre échange continentale africaine te zone de libre échange continentale africaine Sénégal joué ci rôle bu am solo ñu gis ni tamit ci dëkk Afrique yi si seen njënd ak njaay li ëpp ci produit yi ñuy weccoo mu ngi nekk ay produits yu jóge ci industrialisation ndax téeméer boo jël ñeenti fukk ak benn ba ñeenti fukk ak ñett mu ngi nekk produit boo xamante ne euh, am na valeur ajoutée alors que boo xoolee li ñuy weccoo ak euh, ñi nekk mbitimu réew ji euh, bokkul Afrique Euh, loolu téeméer boo jël xëy na fukk ak juróom-ñaar rek wala fukk ak juróom-ñett rek ñoom ñoo ciy nekk loo xamante ne am na valeur ajoutée kon tey jii lii suñu njëriñ ñun Sénégal waaye tamit Afrique moom mooy fexe industrialisation bi euh, mu am fii ci Afrique waaye aussi gën a dëgëral suñu échange ak pays africains yi euh, bu boobaa ñu amal njëriñ pour population bi donc dañuy féliciter waa assis di gis ni am nañu yeneen thèmes yu ñu traité yu mel nii concurrence déloyale nga xam ni dafay gàllankoor euh, ñi nekk ci wàllum industrie donc loolu yëpp am na solo suñu service yëpp ñu ngi taxaw seen wet pour indi saafara ci jafe-jafe yi nga xamante ne ñoom ñu ngi koy jànkonteel. dafa am processus ndax xam nga lépp looy def doo jóg rek doo ne bërëb rek àgg fa nga jëm waaye bi ñu commencé bi ñu jëlee mesures yi am na application boo xamante ne commencé nañ ko service yaa ngi mobiliser waaye lépp lu luñ ciy def dañ ciy boole waxtaan. donc am na ay gàllankoor yoo xamante ne commerçant yi soulevé nañ ñu ko euh, état bi jël na mesures yi war tey jii bu ma fi jógee am naa réunion ak ñoom euh, donc pour ñu gën a aussi sensibiliser membres yi kon am naa yaakaar ni dinañ fa àgg incha allah lu yàggul waaye dañuy soxla aussi ñi nga xamante ne ñoom ñooy consommateur ñu dugal seen loxo ci mbir mi ndax ñoom ñoo nekk ci wetu commerçant yi ñun Euh, boo xoolee contrôle bi dañ koy def de façon tournante donc ñi nga xamante ne ñooy dund ak boutique yi aussi bu ñu gisee ni prix yi respecté wuñu ko ñoom ñoo war a mën a saisir service du commerce ñu mun a intervenir waaye dinañ ci dolli communication gis ngeen ni tàmbale nañu euh, yenn communication yi dinañ ko gën a yaatal incha allah waaye tamit association de commerçants yi dinañ ci gën a jàpp waaye tamit bëgg nañ association de consommateurs yi ak consommateurs yi si seen bopp ñu jàpp ci ndax objectif bi ñun ñëpp ñoo ko war a euh, viser ndax état yu Sénégal dafa def ay effort yu am solo donc euh, tey jii ñun ñëpp comme loolu suñu moomeel la ñun ñëpp a war a fexe ba li tax état bi def effort yooyu ñu gis njëriñ ji maa ngi leen di gërëm leen sax. tey euh, comme ni ngeen ko xamee dañoo organiser woon ab forum sur le commerce et l'industrie ki ko organisé nag mooy euh, ACIS di association des commerçants et industriels du Sénégal association des commerçants et industriels du nag turam rek la wuyoo kuréel la koo xam ne dafa ëmb ay commerçants ak ay industriels waaye mu ñaari secteurs yoo xam ne bokkul te jege lool waaye tamit mboolem ñi yëngu ci secteurs yi moo xam ci niveau bu ñu mën a doon moo xam dañoo doon ay capitaine d'industrie yu mag wala ñoo xam ne ay transformateur kese lañ waaye moo xam dañoo doon ay importateurs yu mag wala ay opérateurs économiques yu mag wala ñu doon sax ay marchand ambulant wala ba ci ay tablier ñëpp la ACIS di soxlawoo yittewoo seen ay jafe-jafe di xool nan lay dem ba saafara ko beneen bi ci des forum bi nag li tax ñu jëfandikoo ko ñu utiliser ñu ñu ko dañuy jàpp ne ñun dañoo war a développer dañoo war a participer ci développement réew mi ci émergence réew mi comme ni ko président de la république di waxee euh, avec à travers de projets yu mu dégage yu bëree bëri Euh, am ci ay réalisations yu jot am ñu ko ci félicité am yu nekk en cours ñu koy ñaanal wax dëgg yàlla mu mu mu ak jàmm aussi parce que Sénégal loolu la soxla mais ñun pour participer ci loolu mënuñu lu dul def ko à travers ci li ñuy yëngu kenn ku nekk ca la nga nekk ca nga mën a euh, def loo xam ne mooy jëmale sam réew kanam ñu nag ci commerce lañ nekk ci industrie lañ nekk. donc loolu moo tax ñu ñu woote forum bi ngir waxtaan ci lu jëm lu ñuy def ba développer ñaari secteurs yooyu ndax jàpp nañ ne bu ñu développé suñu secteurs yi ñu nekk ñeneen ñi ci ñu nekk kon Sénégal mooy développé wu en finance donc loolu lay demee léegi nag ñun ñu jàpp ne tamit développé secteur bi ñun dong mënuñu ko parce que ñun dong nekkuñu ci moo tax te it ñun dong dafa ñu ko seqal ñu ne ah ñi nga xam ne mooy état kat nañ ko ci woo service yi mu mettre en place nga xam ne seen seen seenu seenu sas mooy fexe ba liggéey bi ñu nekk ci commerce ak industrie di liggéey mucc ayib ñu woo leen ci pour ñu ñëw waxtaane jafe-jafe yi andi seen xalaat ñoom tamit waaye ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur privé bi tamit di ci yëngu te nekkuñu ACIS ñoom tamit dañoo am leur mot diir ñu tàllaleen loxo moo tax gis ngeen ñu baree bari teew nañ fi ñoo xam ne bokkuñu ACIS waaye opérateur économique lañ ñoom tamit dañoo war a jàpp ci liggéey bi waaye également ñu gis ne pour mu nekk liggéey boo xam ne dafa tegu ci xam-xam nekk lu lu lu ñu ne nañu ay borom xam-xam yoo xam ne ay jàmbur yàlla lañ dañuy maandu seen xam-xam rek la jëfandikoo moo tax ay experts yu bari woo leen ñoom tamit ci différents thèmes yi nga xam ne moom lañ choisir ñu war cee joxe seen xalaat bu ñu noppee xalaat yooyu nag ci la ñuy mën a jàpp a ah jafe-jafe yi nag en réalité lii la boo defee ñu identifier jafe-jafe yëpp jéem a xool yan yoon la ñuy jaar ngir résoudre ko pour mën a àgg ci li nga xam ne mooy développement secteur privé un secteur privé national fort boo xam ne a yóbbu économie réew mi fu soree sori may nañu yaakaar ci ne buñ ko jàngatee jàngat bu xoot biñ ci am yéene biñ ci am bu àggee résultat yi ñu xaar nañ ko am mooy identi maanaam les vrais problème ñu identifier ko am ay yoon yu leer yoo xam ne tamit buñ ci jaaree danañ jëm ci li nga xam ne mooy li ñu bëgg muy solution te thème yooyu thème principal bi wax naa leen ko ah c'est le secteur privé national à l'épreuve des faits donc moo ëmb ñetti thèmes yoo xam ne benn bi modernisation des marché la soxal te loolu urgence la parce que bis yàlla sàkk ñu ngi gis jafe-jafe yi nga xam ne ñi marché yi ñu ngi koy jànkonteel lakk yeeg insécurité beeg ak yu bare bari insalubrité beeg bu ko defee ba ki dem démb sax lakk gi am euh, ci salle de ci cadre boobu lay dugg mais am na beneen thème boo xam ne dafa soxal concurrence déloyale ministre bi jot na cee détaillé lu am solo am na ñu ko war a waxtaane waaye am na tamit loo xam ne soxal na industrialisation parce que am réew mënoo boo waxee ne da nga bëgg a développer rek faaw nga wax industrialisation parce que faaw nga wax transformation loolu mooy créer li ñu tuddee valeur ajoutée mooy créer richesse créer emploi bu ko defee secteur bi mën a dëgër parce que ku la dàq eh, eh, produire moo la ëpp avenir ci wàllu économie te gis nañ ne li ëpp ci réew mi ñun dañuy importer te not économie dafa extraverti c'est basé vers l'extérieur te loolu lu ndaw ndaw rek mën na indi gàllankoor ba am répercussion ci réew mi boobaa du gën mais également ci jamono boo xam ne nag dañuy wax waxu ZLECAf nga xam ne un marché commun la ñuy créer à travers le continent africain donc pour ñu profiter ci nan lañu ñu war a def est-ce que industrialisation nekkul euh, loo xam ne exigence la impératif la yooyu yëpp war nañ ci xalaat mais de toute façon bu ñu génnee ci loolu daal jàpp nañ ne daañu tënk loo xam ne danañ ci mën a sukkandiku ngir mën a mën a atteindre suñu objectif comme ni ma ko waxee mooy yoon ñuy jaar ba jëmale suñu économie Abdourahmane Sill secrétaire général de ACIS association des commerçants et industriels Sénégal